suufe fu muy suufe ah xanaa ci ci biir sëriñ bi laa koy def te maa ko fay defal sama bopp ndaw si ne ko ah wax dëgg yàlla man de du ma du ma war sama jëkkër nag man de loolu du ma ko def daal di dem bàyyi sa sëriñ ba waaye ndeysaan doomu aadama ku néew dooleem rawatina jigéen xo joxañ san bàyyi fan ba mu demee ba ceeb ga takkat naase yëfe jàpp kaw jàpp suuf xol bi metti mu ne daal naa dem ci sëriñ ba mu dellu ci kaw jaaxle sëñ bi ne ko ah li fi nekkoon nag moo fi nekk de boo nangoo samay condition daal man ma ñaanal la man li ma lay defal su ma la ko defalee amul naa tam ne dañ ci def sa bët sa jëkkër duutu waxte ku dul yow ndaw si daal daal ten deefal jaaxle waaye amul tax xam nga lu mu defa dafa nangu dafa nangu sëriñ bi saay saaye ko sëriñ bi saay saaye na ko lekk na xaalisam wujj na ngay sëy ak moom ana mu pertul sunu jigéen ñi nañu bàyyi xel ci sëriñ si leen di nax nañu bàyyi xel ci ne gaaw a gëm ak njabar gaaw a gëm borom kaala ku yor kurus rek nga daal dina ab sëriñ la loolu nañ ci bàyyi xel borom bi tabaraka wa taala daa bëgg nu wéetal ko tey tam boo amee loo bëgg wut ko ci aw wutin wu jub waaye wutin woo xam ne yàlla andu ca yont bi andu ca boo ca duggee foo loolu dal ndaw si moo lay dal ak koo mën a doon yan nag yoo xam ne jigéen ñi ngi koy gëm yan nag yoo xam ne jigéen ñaa ngi koy takk yaakaar ne da leen di aar loolee da leen di dolli musiba rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay xadis yu bare bare bare te bokk na ca yooyee yenn xeeti gàllaaj ay jaaroo yenn saa yi yenn saa yi ay galan yenn saa yi ay wëñ yoo xam ne yi dañ koy takk yenn saa ci përëg mbaa ci ndigg yooyu yépp maa ngi xamal mbokk juif yi ne leen rawat na juif ñu jigéen ñi ne leen ak cànkute rekk la imaam ahmad solo na jël ci imran ibnu xusayn mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa gis benn waay bu takk ab jaaro benn waay bu takk ab jaaro raawi xadis bi nee na bi ko yonent bi gisee yonent bi da ko ne way xaka ma haadihi da ko ne doomi tas xew ji li nga takk lu mu doon mu ne ko lii gàllaaj la gu ñuy wax waahina waahina yonent bi ne ko ala innaha la taziduka illa wahanan umbudha anka fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflaxta abada yonent bi da ko ni tekkil lii sànni waahina du la dolli lu dul ak doyo bi lii nga takk di ci wut ak ak ak aaru da lay dolli doyo bi rek dindi ko sànni maa ngi lay xamal ne lii boo ko deewaale woon doo mucc mukk yowmal xiyaamati kon mbokk mbokk yu jigéen yi ak ñu bari ci mbokk yu góor yi ñu ngi takk yoo xam ne buñ ko deewaalee duñu mucc mukk nañ ko tekki sànni mu ngoon te bokk na ci xeet yooyu nga xam ne xeet ñuy takkal te mu bon ay tamaim tamit tamima boroom xam-xam yi leeral nañ ko wax nañ ne ab per la wala ay per yoo xam ne arab yi dañ ko daan takkal seeni gone wax ne da leen di musal ci jinne wala da leen di aar ci bët bu aay mu ngoog waaye islam daf koo dindi daf koo weddi islam daf noo xamal ni aar yàlla rek koy def musal nit yàlla rek moo ko man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci beneen xadis boo xam ne ahmad moo ko solo jële ko ci uqba ibnu amir man taallaqa tamimatan fala atama allahu la wa man taallaqa wadaatan fala wadaa allahu la am na benn riwaaya bu wax ne man taallaqa tamimatan faqad ashrak yonent bi daa wax ne képp ku takk tamima la nga cay wut yàlla bu la ko yàlla defal kon boog la nga takk ne da ngay caa bëgg kaaraange da nga caa bëgg daraja da nga caa bëgg bayra loo ci mën a bëgg te yonent bi ne la nga cay wut yàlla boo ko am moo tax da nga ko am dafa ngeen ni doo ko am te da nga ciy alagoo yonent bi wax ci benn xadis ne man taallaqa tamimatan faqad ashrak ku takk tamima bokkaale nga mu ngoog su ko defee foofu it faaw ma leeral ci ne am na tuuti wuute su fekkee li nga takk li day ay aaya alquran wala mu ngoog ay turu yàlla su fekkee li nga bind takk ko ay aaya alquran ak ay turu yàlla ndax su boobaa day dagan ñu mën koo takk am day xaraam boroom xam-xam yi kat dañ cee wuute te démb te jamonoy saxaaba yi ba léegi jamonoy taabiin yi ba léegi dañoo wuute ci alquran ji bind di ko takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta bind ab téere takk ko déedéet yonent bi musta bindal kenn téere moo tax dafa am ci borom xam-xam ne ñu wax ne loo xam ne li yonent bi defu ko woon ci diine ji ñoom duñ ko def te te itam ànduñu ci bu fekkee ne bi am na ay xaadis yu tere takk mu nga kon ñoom dañuy daal di xaraamal loola am na ci borom xam-xam yi ñu wax loolu am na itam ñu ne bu fekkee ne bii la nga takk li ab téere la boo xam ne ci alxuraan la jóge loola kon aayul bu fekkee ne bii fexe nga ba di ko sàmmanteeg moom ba di ko yor ci waxtu laab werante la woo xam ne julit ñu yàgg nañ cee werante bëgguma cee del ci waaye rek dina wax naa baax si loolu il faut ñu jaar ci jaar bu gàtt bu ko defee am na leneen lu nga xam ne mooy itam mat naa bàyyi xel te mooy loolu ñuy wax ruqa mooy mocc ndax mocc baax na wala bon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna ruqa wa tamaima wa tawlata shirk yonent bi nee na mocc ak tamaim yi yi ngeen di takk nee na lépp bokkaale la lu nga kon kon mocc dafa baaxul mocc nag boroom xam-xam yi nee nañ dafa am ñaari xeet mocc koo xam ne day waxi arab day waxi arab di ay baat yoo xam ne ci alxuraan la bokk mbaa muy ay tur yàlla am na ñuy mocce loolu yooyu mocc moom boroom xam-xam yi nee nañu dagan na te indi ci itam xadis boo xam ne dina ñëw léegi incha allah ak mocc koo xam ne da ngay wax ay baat yoo xam ne xamoo lu mu doon mën naa am muy baat shirk wóoru la googu mocc dafa xaraam moo tax yonent bi di wax naan inna ruqa wa tamaima wa tawlata shirk mu ngoog bu ko defee xadis bi nga xam ne moo wane ne mocc gu bokk ci alquran dagan nag moo di xadis boo xam ne awf ibnu malik nee na kunna narqa fi ljahiliya fa qulna ya rasul allah kayfa tara fi dalik fa qaal iridu alaya ruqaakum la ba'sa birruqa ma lam takun shirka ne kooku ci saxaaba yi la bokk nee na bi ñu tuubagul dugguñ ci islam dañ daan mocc nee na bi ñu duggee ci islam ñuy laaj yonent bi suñu mocc yooyu ndax baax na yonent bi ni leen wan leen ma seeni mocc kenn ku ne mocc ga muy mocc na ko indi wax ko ma dégg mocc aayul feek nga xam ne du dafa doon shirk kon boog mocc bu fekkee ne bi day alquran day dagan xam ngeen ne am na ci saxaaba yi mbooloo moo xam ne yonent bi yónni woon na leen ñu dem cib dëkk fekk fa ku jaan mat ñu mocc jaan nga ba mu wàcc te faatixa lañ ko mocc kon boog faatixa mën naa mocc ci koo xam ne ki ruuga sell na tafaaul am na diggam ak digganteem ak laay yi waaye nag il faut ñu xam ne faatixa jooju mocc taxu koo jóg ay aaya la ay ndigal la ak i tere ñu war koo jëfe ala kulli xaal boo tatbiqee faatixa ba àggal ba mu def nag bëgg cee léemu mën nga cee léemu mën nga cee mocc ndegam sa ruu sell na ndegam tafaaul bi war a am diggante ak alxuraan am na kon mocc bu fekkee ne bi ay baati shirk la ca am wala mocc dee sa xamul ba xam baat yi li muy tekki su boobaa day xaraam mu ngoog ba tey bokk na ci xeeti bokkaale yi ak njabar te njabar jullit ñi war nañoo xam ne ci bakkaar yu mag yi la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ngoog yonent bi nee na salaatatun laa yadxuluuna aljannata mudminul xamri wa musaddiqun bi sixr wa qaatiu rahim yonent bi nee na ñett ñii duñ dugg àjjana ñett duñ dugg àjjana ku dëkke naan sàngara ak ku gëmug njabar ak kuy dogu bokk ñett ñi yonte bi duñ dem àjjana kon ba gëm ak njabar damaa jëndale jëf gi waaye gëm gi rek sirk la gëm gi rek bokkaale bu mag a mag a mag la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala safara la ci digge ba tey muslim solo na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala man ataa arraafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salaatu arbaina yowman yonent bi nee na ku dem cëb xamkat laaj ko mu wax la dara la mu la wax nga gëm ko feeg ñeent fukki fan loo julli kenn du ko nangu te bu ngeen gisee ma insisté foofu ci wàllu masala jabar ak xamkat yi suñu mbokk jigéen ñi koo fonk lool mbokk jigéen ñi nañu bàyyi xel ci xam ne njabar ay nax rek la ak njabar dafa xaraam dem ci jabar dem ci xamkat mun naa la ku ñuul kee ku xees kee ku xeeral kii ki nga xam ne guddul gàttul jabar bi day fen rek jabar bi nga dem ci këram fekk mu dëkk ci néeg bu bon yow yaa ko gën néeg boo dëkk yaa ko gën a rafet bu moo sol boo demee la jabar bi ñaar téeméer yi sa poos moom la yaakaar pour dépense moo jabar boobee bu ne lee mën naa faj sa aajo noo koy gëme xanaa yomb na waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tépp ku dem ci ñoom ñoo ñii ñu wax la dara nga gëm ko feef ñeent fukki fan loo julli yàlla du ko nong ci beneen xadis abu daawuda moo ko solo nee na man ata kaahinan fa saddaqahu bi ma yaqulu faqad kafara bi ma unzila ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na képp ku dem cib xamkat mu wax la dara nga gëm ko gëm la muy wax wet gi nga li ñu wàcce woon ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag képp koo xam ne kii yaa ngi def loolu ci góor ñi ak ci jigéen ñi nga xam ne ma ngay weddi alquran ma ngay weddi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit bu jigéen du mën a doon koo xam ne kii day gëm ak njabar gëm ak mbuxaama bari lu muy dem ci jabar yi ñuy seet ak di wax ak di fen muy gëm fen yooyee di takk ay xaal ak ay ay ay galen gil bu jigéen di def loolu gil bu jigéen du doon koo xam ne kii day gëm ay xuraafaat ak caaxaan waaye te yaakaar loolu rek moo ko mën a muccal gil bu jigéen day gëm yàlla wéetal yàlla ci rububiya xam ne la la yàlla teg ci xéewal kenn mënu koo dindi la la yàlla joxul kenn mënu la koo jox loolu la borom bi tabaraka wa taala wax xam ne yàlla moom dong moo yor lor moom dong moo yor njëriñ amul kenn ku mën a joxe la yàlla xañe amul kenn ku mën a xañe la yàlla joxe loolu moo tax mu bokkoon ci ñaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa maani'a lima aatayta wala mu'tiya lima mana'ta yow yàlla la nga joxe kenn mënu koo xañe la nga xañe kenn mënu koo joxe ab jabar mënul dara xamul dara day fen rek su ma noon dara fi muy tàmbalee mooy am dépense mooy am kër gu baax mu ngoog borom bi tabaraka wa taala wax na wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli nee na bu la yàlla tegee lor amul kenn ku mën a dindi lor joojee ku dul yàlla bu yàlla namee ci yow aw yiw amul kenn ku mën a delloo yiwu yàlla wi mu lay indil kon boog ab jullit bu jigéen day gëm loolu wéetal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida saalta fasalillah wa ida staanta fastain billah nee na yow jaam bi yow jullit bi moo xam góor nga moo xam jigéen soo dee ñaan ñaanal yàlla bu fi ñaan ab jabar bu fi ñaan ab sëriñ ab sëriñ moomul jàmm moomul ay ab sëriñ mooy lan ab sëriñ mooy ko xam alxuraan ak sunna di ca woote di ca yaru di ca yar nit ñi saa bu sëriñ waxee leneen lu bokkut ak lii kooku daa bëgg dorog dammeel des ko fay bàyyi te seen sëriñ bu baax ñu topp ko loolu la ida saalta fasalillah boo dee ñaan ñaanal yàlla lor ak njëriñ yàllaa ko yor maa nga xam Bamba wax na ci baytam an nafcu wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani njëriñ ak lor ci yàlla dong lay bawoo du bawoo ci nit ku ñuul du bawoo ci nit ku weex an nafcu wa durru min arrahmani njëriñ ak lor ci yàlla mu bari yërmande dong lay bàyyi ko loolu moo dëppoog li yonent bi wax ida saalta fasalillah boo dee ñaan ñaanal yàlla wa ida staanta fastain billah boo dee sàkku ndimbal sàkku ko ci yàlla yàlla la mën a dimbali waaw bu fekkee da nga yaakaar ne sëñ diw mën na laa dimbali sëñ diw mën na laa dimbali sëñ diw mën dimbali boppam sëñ diw dafa bëgg yàlla dimbali ko yàllaa koy dimbali yàlla may dimbali sëñ diw moo la mën a dimbali wakkilu ci moom yàlla may dimbali boo xaama ba ak jabar ba moo la mën a dimbali yow góor gi ak jigéen ji kon boog dellul ci yàlla te wakkilu ci yàlla moo tax ba jul bu jigéen bi yow may déglu li ma lay laabiree mooy mboolem yi nga takk yépp tekkil sànni te doyloo yàlla te wóolu ko te jokk ci yàlla te sax ci déeyoo ak yàlla saxal ci wax ak yàlla subhaanahu wa taala ñu bari ci nun dañuy sàggane wax ak yàlla yow jil bu jigéen bi del wax ak yàlla soo amee loo jaaxal demal jàpp ba sell nga julli ñaar rakka su jóot mujj ba wool sa borom yàlla wax ko ko wax ko li nga bëgg wax ko li nga bëgg dangaa bañ wujj ah bala ngaa ñaan yàlla bu ma wujj nag na nga xam ba xam ndax sa borom yàlla dàkku na cam dén da ngay ñaan lu dagan da ngay ñaan lu dagan da ngaa bëgg sa borom kër fonk la da ngaa bañ mu sàggane la loolu yoon la waaye boo ko bëggee bul dem sa jabar ba bul dem ci sëriñ ba jàppal ba sell yàlla nee na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa ida daani yàlla nee na yow muhammad sama jaam ñi suñ ma la laajee nee leen jege naa leen lool qarib yàlla ne jege naa leen lool danaa wuyu woote aji woote dinaa nangu ñaanuk aji ñaan su ma ñaanee te wuyu ma waaw kon boog wuyul yàlla wuyu ko mooy maanaam jaaral ci ndigalam bàyyil ay tereem wallahi tatbiq leen kenn ku nekk ci yéen na def riyaada lu mat ñetti fan usbuu nangami fan yoo xam ne day góorgóorlu mbooleem li yàlla tere mu ba ko mbooleem li yàlla santaane mu def ko mbaa mu def li mu ci man lépp am soxla ba di dem fenn jàpp ba seen julli ñaar ak kàttal loxoom yàlla ñaan ñaan nga du dellu mukk insha allah ndare muy ñaan loo xam ne yàlla daa xam ne bu nangoo muy musibaam te kon tam kat yàlla du ko jox musibaam waaye yàlla du ko nee il faut mu tegal ko fa leneen lu ko mën a remplacer yàlla moo tabe yàlla moo tabe ba nga xam ne soo ñëwee ne ko yàlla may ma xalima gii yàlla xam ci xalima gi loo xam ne xam na ne boo ko moomee da nga alku yàlla du la may royu alak waaye waaye du la neenal il faut dafay teg xalima ga jox la leneen waaye yàlla du neenal mukk laaju aji laaj kon boog yàlla moomu baax ba dee tabe ba dee di maye lépp jegenu boo soxlaa aajowul ngay taal wata aajowul ngay paas yàlla laaj ko aajowulu weexal loo demee kon te bu xaaw mu naa la ñeenti junne fukki junne ñaar fukki junne kay demal ci borom bi tabaraka wa taala aajowul weexal sellal jàppal jullil jàngal alquran ñaan ko boo ko ñaanee mu may la loolu lay digal sa mbokk jullit yu jigéen ñi nañuy déeyoo ak yàlla jullit bu ne rawat ne jigéen ñi nañu am relation directe ak yàlla nañuy wax ak moom ci seen soxlay adduna ak seen soxlay àllaaxira te yow jigéen ji na nga xam ne boo wéeroo ci yàlla yàlla dina doon sa kéeraay dina la dimbali bu ko defee na nga wéeru ci moom te nga jaamu ko ni mu ko santaane na nga jaamu yàlla te xam ne jullit bu jigéen bu dee daa bëgg a xam nu war a mel ci wàllu jaamu yàlla mooy jullit bu jigéen kat day doon ab jaamu katub yàlla waaye jullit bu jigéen boo xam ne bii ba mu tuddee Fatima mbaa Aïcha foofu la njullit ga yem bu julli jotee bu bee mu jàpp julli su bee du julli wala mu julli te du jàpp te ñu bari ci suñ mbokk jigéen ñi léeg-léeg ñu xaw a sàggane julli xaw a sàggane lool diine ji jàpp ba sell toog ak yàlla jullil ko jël téere alquran jàng zikr ci asmaul husna loolu la yàlla bëgg jigéen ñi di ko def te léeg-léeg ay jigéen daañu ko sàggan kon boog jil bu jigéen jaamukatu yàlla lay doon jil bu jigéen day jàng attay ibadat day jàng attay laab nu ñuy jàppe nu ñuy sangoo cangaayal farata nu ñuy jullee nu ñuy woore lan lan mooy yàq koor kañ la la ñuy war a fay koor anak mu ngoog lan mooy gaar jigéen ba duutu war a julli duutu war a woor ak koor gi ak jullit lan la ci war a fay yooyu yépp jullit jigéen dañ ko war a xam dañ ko war a jàng bu ko defee buñ koy jëf itam ñu fexe ba jëfe ko naka yonent bu waxee sallallahu alayhi wa sallam te xam ni lépp lu ñuy def muy jàpp muy sangu muy julli muy woor muy lépp lu jullit di def am na nu ko yonent bi bëggee am na nu mu ko jàngalee soo ko defee na mu ko bëggee mooy tax mu mën a am njëriñ mooy tax nga mën ci am tuyaaba bu ko defee boo fekkee am nag jaamu yàlla goo xam ne da nga koo defee neneen nu bukk na yonent bi jàngale loolee doo ci am dara dara nga ci dul am bu ko defee ñu wéetal yàlla wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak roy booy wéetal yàlla moom dong ngay jaamu booy wéetal yonent bi mooy maanaam nga wéetal sag roy jëme ko ci yonent bi mooy nga roy yonent bi saw jàppin saw sangu wiin saw julli wiin saw doxalinu àdduna te bañ a roy keneen ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee jullit bi jéem a jullit bu jigéen bi jéem a xam yàlla jéem a am xam sayidina muhammad ak ay jaaritam te xam ne roy sunna yonent bi day tax yàlla bëgg la day tax yàlla baal la say bàkkaar comme ni ko yàlla digee ci alquran bu ko defee mbokkum gis mu jigéen mi na xam ni am na lu ñuy wax fiqhul maratil muslima na ko jàng jil bu jigéen bu ne na jàng fiqhul maratil muslima fiqhul maratil muslima mooy lan mooy ay ay aaya ak i xadis yu jëm ci ay jëf yoo xam ne jigéen a koy def ni ki lan ni ki di julli wala ngay woor ba mu yàgg deret ñëw deret jooju di ñëw par weer nu mu tudd deret jooju ah mbërëg dereti xayd wala dereti mbërëg wala dereti reegal am na ay atte jigéen ji war na koo xam jigéen bu wasi ne deret ji muy gis am na ay atte jigéen ji war na koo xam jigéen bu dee bëgg a solu solu ji am na ay atte jigéen ji war na koo xam jigéen ji lépp lu muy doxal ci biir këram mbaa ci biir sociétéem am na ay atte war na koo xam loolee mooy fiqhul maratil muslima loolu jullit bi jigéen bi da koo war a jàng te itam góor gi da ko war a jàngal jabaram da ko war a jàngal ay doom yu jigéen ak ay sëram ak yaayam ak i bàjjinam war danoo xam ni deret jooju di règle bu ñëwee lu mu néew néew mën naa am mu mat bis benn bëccëg ak génn guddi waaye li mu baree bari du weesu fukki fan ak juróom mu ngoog dana faral di nekk nag juróomi fan ba juróom benn fan waaye du weesu fukki fan ak juróom loolu jigéen ñi war nañ koo xam dereti règle mën naa yem ci benn bis waaye mun fee yàgg-yàgg ba weesu fukki fan ak juróom dereti wasin moom meret moom mën naa gàtt lool ba yem ci kenn saa mën naa yàgg it waaye lu mu yàgg-yàgg du weesu ñeent fukki fan ñoom ñaari deret yooyu yépp benn bu ci na jigéen ji war naa xam lay ay atteem lay ay atteem mooy lan moo di bu ci ñëw da ngaa war a daal di bàyyi julli jigéen bu yore regal du julli te itam daa war a bàyyi koor te itam jëkkëram duutu saye sañ ak moom duutu sañe saye ak moom jëkkëram duutu sañe saye ak moom jigéen ji yor dereti xayb dereti regal wala dereti meret jëkkëram sañu ci saye ak moom yàlla moo wax ne wala taqrabuhunna xatta yathurna bu leen sëyeeg jigéen ñi tant que ñu ngi yor deret ci règle wala meret feet du dañoo dem ba laab ba ñu sangu mu ngoog kon boog jigéen bu yoree deret jooju bu mu julli bu mu woor koor gi nag daf koo war a fay julli gi moom kenn fayloowu ko ko bu mu jàng alquran jullit bi bu yoree deret jooju kenn waru koo fase te loolu jur jigéen dañ ko war a jàng góor ñi dañ ko war a jàng ne góor ñi xam ne jigéen ji yor dereti ragal kenn du ko fase jigéen ji yor dereti meret kenn du ko fase am na ci saxaaba yi ku fase woon jabaram te fekk dafa yor deret waaye ba ko yonent bi yëgee yonent bi dafa mer daal di ne na ko di indiwaat na ko delloosi ànd ak moom ba nga xam ne laab na bu laabee ba gisaat reegal ba laabaat bu nekkee ci biir ak laab goo xam ne gii nag sëyu ceeg moom su boobaa mu doon ko fase loolu moom la alxuraan santaani jigéen ñu baree baree bari ak góor ñu baree baree bari xamatuñu attee fase xamuñu yooni fase na julit ñi delluwaat ci kitaab ak sunna jàngwaat lu ñuy fase yaa ayuha nabiyu ida tallaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna talliquhunna li iddatihinna mooy bi ngay fase ndaw si na fekk yurul reegal waaw yurul reegal te itam bi mujjee kóot reegal ak léegi sayu leen ci kon yow góor gi bi nga meree bëgg a fase sa jabar defal ndànk teeyal seetal ba mu wóor la ne àndul ak régal seetal tam ba nga xam ne bi mu mujjee fóot régal léegi sëyu leen bu dee bi mu mujjee fóot régal léegi da ngeen a sëy bul fase loo mer-mer bàyyil rek ba régal ji ñëwaat ba mu fóot ba nekk ci laab goo xam ne àndu leen ci boo dee fase nga door a fase te booy fase nga xam ne yàlla day buggul ku fase inna abgadul xalaali ila llahi talaaq mbooleem li yàlla daganal lim ci gën a bañ mooy fase jigéen ñi war nañoo xam atte yooyu mu ngoog bu ko defee jigéen ñi xam ni ñetti xeeti jigéen ñi am nañu ci wàllu règle jigéen joo xam ne dafa door a tàmbali di gis direct règle ak jigéen joo xam ne moom yàgg na koo gis jigéen ji nga xam ne dafa door a tàmbali gis direct règle day toog rek bàyyi julli bàyyi koor ba deret di jeex moo xam benn fan la moo xam ñetti fan ba mu jeex rek fu mu jeexee nag mu daal di sangu te daal di tàmbali di woor te daal di tàmbali di julli te fan yi nga xam ne moom la wóorlu woon ngir deret ji na ko fas yéenee fay incha allah bu ramadan jeexee julli gi nag moom kenn du ko fay loo bu fekkee nag ndaw si daana gis règle kon ñaata fan la deret ji ànd ak moom xanaa lam daa ànd ak moom rek bu dee juróomi fan la ko daa gis juróomi fan lay doon bu dee semaine semaine lay doon bu fekkee ne bii nag kii doole tàmbali gis règle wala kii daa gis règle deret ji dafa continuer ba am fukki fan ak juróom nar ak wéy kooku mooy mustahaada loolu nag kon moom kenn duutu toog bañ a julli bañ a woor gannaaw fukki fan ak juróomi régal régal bu amee fukki fan ak juróom foofa la yem su continué joojee deret tuddutul régal mustahaada la tudd mooy demul istihaada loolu du tee julli du tee woor du tee sa sa sa borom kër sëyeeg yow loolu lépp jullit ñi dañ ko war a xam jullit ñi jigéen ñi dañ ko war a xam ba tey jullit bu jigéen bi na fexe ba bu toogee ba takkusaan taksaan jot na nodd nañu muy waaj a julli julleegul yàlla dogal deret ñëw deret ji ak takusaan si lu jiitu lu njëkk a ñëw xanaa takusaan si kon na xam ne waxtu woowu war na koo fay kañ la koy fay bu toogee ba deretam jeex ba deretam jeex na dem nag fay waxtu woowee nga xam ne bi muy gis deret waxtu woowu duggoon na naka noonu itam deret jigéen ji boo xamee daa gis deret ba mu yàgg deret ji jeex jeex na ci waxtu tàkkusaan masalan jeex na ci boor yi boor yi cinq heures demi six heures xanaa tàkkusaan jot na xanaa weesoogul su boobaa na daal di gaaw dem sangu ji te daal di julli waxtu wu teew yi bu mu yaakaar ne mën naa naxasaale feet sanguwul rek julli war a gu ko aha kay julli war na fa deret ji mate na daal di daal di dem sangu ji te julli bu yàlla dogalee mu yéex a sangu ba jant bi soyit nga xam ne tàpp sensation da ko war a fay loolu lépp ay atte la yoo xam ne jigéen ñi dañ ko war a xam te bàyyi ci xel ba tey jil bu jigéen boo xamee ne borom këram daa bëgg sëy ak moom daa war a gàntu bu ko bëggee nax naa ko maay sa borom kër maa lay yóbbu àjjana na lànk na lànk ndigalal borom asamaan ak suuf kenn du ko dem la ndigalal jëkkër a dégg naa ñu ne am na ay sëriñ yi wax naan jigéen moom xeetal ayul ci moom wala yokk su fekkee ne bi jëkkëram moo ko sant bisimilah jam waaw bu ko jëkkëram sant yàlla tere ko nag ah yàlla da koo tere ñu ne jigéen moom lépp lu mu def pour pour rafet jëkkëram rek dagat na loolu ana fu ko yàlla waxe ana fu ko sayyidna Muhammad waxe sallallahu alayhi wa sallam loolu ay waxe cànkute la li wér moo di jigéen war naa déggal jëkkëram jigéen war naa topp jëkkëram waaye ci kaw sartu jëkkër yi ànd ak moom jaar ci alxuraan ak sunna saa boo xamee ne sa jëkkër dalaa bëgg a jadd lu alxuraan ak sunna na nga daal di xam ne sañut laa topp sa jëkkër laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp ku ñu bind ba tax nga mooy aji bind ji sa jëkkër yàllaa ko bind sa baay yàllaa ko bind sa sëriñ yàllaa ko bind sa chef de service yàllaa ko bind yàlla mi sàkk ñooñu ñëpp nga dem di mooy ay ndigalam ndax sa jëkkër sañoo ko kon boog jigéen ji bu gisee ragal jëkkëram bëgg sa yeeg moom na fépp yàlla moo wax ne yasaluunaka anil mahidi qul huwa adan ñu ngi lay laaj ak tey jigéen ji gis reegal wala ñu ngi lay laaj dereti reegal qul nee leen huwa adan dereti reegal sobe la faatazilu nisaa fi lmaxiidi na ngeen daru jigéen ñi jamono yi ñu yore reegal bu leen sëyeeg ñoom laa taqrabuhunna bu leen sëyeeg ñoom xatta yatuhurna ba ba ñuy laab fa ida tataharna bu ñu laabee ba sangu faatuhunna min xaytu amarakum allah su boobaa mën ngeen a sëyeeg ñoom te jaarale sëy bi fa yàlla santaane inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirin yàlla bëgg na lool ñi nga xam ne dañuy faral di tuub bëgg na lool ñi nga xam ne dañuy sàmmante ko bu laab loolu la borom asmaan ak suuf wax suratul baqara ñaar téeméeri aaya ak ñaar fukk ak benn kon mbokk mbokki jigéen ñi laay jàng noonu képp ku ci gis regal jëkkëram bëgg koo sëy ak moom na xam ne daa war a sët mu ngoog bu ko defee jul bu jigéen bi ni muy ittewoo attay laab attay julli attay koor di ko xam ak di ko jëfe noonu tam la war a ittewoo attay fase bu yaa bu leen yaakaar ne attay fase góor ñi rek ñoo ko war a xam ah kay na ko jigéen ñi xam di waxtaan ak seen i jëkkër di leen laa biire bu fekkee yow ndaw si sa jëkkër daa sàggan boo xamul attay fase yow na nga farlu ba jàng ko boo demee nga jàngal ko ko jigéen ju baax góor kat moo war a jàngal ji jabaram bu amee fulla waaye nag bu góor sàgganee ba jàngul jàngalul ay njabootam jigéen ñëw na farlu farlu gu toll ne dem jàngi diina ñëw jàngal jëkkëram daawa ko jëpp jigéen joo xam ne ji daa am jëkkër jëkkër ji doonub aasuuna doon ab sag ku sàggan koo xam ne kii di defe kitaab ak sunna na ko ndaw sa woo ne ko kaay ci kitaab ak sunna ndax nu mën a am ngërëmal yàlla ndax suñu sëy bi mën a neex mën a am barke yàlla ñu ci yàlla dimbali kon boog jigéen ñi war nañ ittewoo ak tey fase xam ko waaw xam tam ak tey idda ak tey idda na ko jigéen ñi jàng te xam ko nañ ko laaj suñ ko xamul nu ñuy jàppe idda nañ ko xam nañu xam atte nampal nampal am na ay atte nañ ko jéem a xam te xam googu ñu jublu ci fas yéenee taxawal atte yàlla da ngeen am lu ñuy wax code de la famille code de la famille mooy li nga xam ne li tubaab yee ko bind dégg naa ñu ne dégg naa ñu ne sëñ ba dafa am ab taalibeem bu bu ñu jàppoon yóbbu ko tribunal yóbbu ko tribunal di ko bëgg a yóbbu yoon sëñ bi ñëw sëñ bi ñëw ci ko jàpp mu ne ko mu ne ko man de yoon dee ko jàpp mu ne ko waaye waaye seen yoon yooyu nga xam ne moom jógewul fenn jëmul fenn yoon tubaab fu mu jóge jógewul fenn fu mu jëm jëmul fenn yoonu jógewul fenn jëmul fenn mooy code de la famille waaw nit rek nit rek ko doon wax te mën naa am muy nit koo xam ne ki gëmul yàlla gëmul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola jigéen da koy moytu góor gu baax da koy moytu jigéen day tënku ci alxuraan ak sunna fas yéene taxawal atte yàlla ci kaw suuf te xam ne taxawal wax wala nga jëf ba atte yàlla yi taxaw bu leen yaakaar ne góor ñi rek la war yàlla dafa wax ne laa udiru amala aamilin minkum min dakarin aw unsa man yàlla du ma neenal jëfi aji jëf ci yéen mukk moo xam ki jëf góor la moo xam jigéen la kon boog jigéen ji na góorgóorlu ci jàng attey idda attey nampal attey fase attey lislaam jàng ko di ko jëfe te di ci woo jëkkëram te jigéen ji na ragal yàlla bu mu dem di nekk ab féministe bu mu dem mukk di nekk ak féministe taalibeb Simone de Beauvoir taalibeb taalibeb Sartre Jean Paul Sartre ñooñu nga xam ne ay nit yi safara lañu seeni yoon mooy féminisme mooy weddi alquran mooy nañu yemale góor ak jigéen ci miraas dégg naa loolu la suñu jigéen ñi wax dégg naa suñu kilifa yu jigéen yi dañuy wax te biggin ne alquran dañ ko war a tiri ndaxte daal góor ak jigéen dañoo war a yem ci miraas bismillahi rahmaani rahim jàmm mbokki julit yi ñooñu bokkuñ ci ñun bokkuñu ci ñoom nun danoo gëm alquran am déet danoo gëm alquran danoo gëm sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i waxam am déet waaye waaye ku gëm leneen jàppal ci la nga gëm te bonoog li nu gëm ñun alquran ak sunna la nu gëm koo xam ne kii da ngaa gëm ni alquran yàllaa ko wax waaye loolu yàlla wax daa maanduwul yàlla bu nee na góor am ñaar jigéen am benn loolu mbaandu lañ ko war a soppi ka wax loola xam ngeen du jullit ka wax loola xam ngeen ne bokku ci ñun ka wax loola xam ngeen ne war lu ko dénk suñu dara dañ ko woote wóolu sax loolu na ci mbokk jur yëpp bàyyi xel bu baax a baax jullit bu jigéen bi na ragal yàlla na rusa dem di nekk ab féministe dem di défendre ak féminisme su boobaa ma ngay détruire boppam ma ngay détruire diineem ma ngay détruire aw xeetam ma ngay yàq nañ ci bàyyi xel bu baax a baax su ko defee jil bu jigéen bi na góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla te jaar ci ndigal yàlla te bàyyi ay terrain jil bu jigéen noonu lay mel ci wàllu ibadat ci wàllu jikko jil bu jigéen ci kaw ak jokkoom gu dëgër gu mu jox ko ci yàlla moo tax ba day góor góorlu ci jikko yu rafet yi yàlla bëgg ku ko jikko woo